وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارة luhuuri dan dunu suqtil inda sarsara luhuuri Musa لمن أوى قبل الخدير وسد سامي جسر لخدمة المختار في صبر زمر صبر زمر كارمة وجنك يتدمر أبوك أن يكون الإنوار amul kenn amul ku mbay ku mbay jata bàyyi dem yu ñu nga dam man bu xamul laay bu ko xam kaw mbaw laaya kaw mbaw laaya bu toppatul yàlla bu toppatul yàlla bu toppatul yàlla bu toppatul yàlla mu noppi waaya mu noppi waaya baalu ko dal baalu ko dal bu ko xul fulaaya bul fulaaya nit ñi ma topp yàlla topp yàlla topp yi ndigalam topp yi ndigalam jéem a daw saytaan خمين دبلا خمين دبلا تجينا رجال الله تجينا كل جان الله الخير خير في المدار بدار لكن الذي لا نقول الدهر ولا على الدهر سيطانة سيطانة بنيخ بنيخ بكر بكر الدنيا دولين فتلانة غنون يبونيا يبونيا أما يا رمو يا نفسي أوبي سكتا غنا كفلاتي حتى تقول بارلا وسيطانة كما خير الله sultana nobul nobul anga sa jaxta sa gerba nobul nobul bayaba ومن يهاجر في سبيل الله Sambulan da tukumaya, sambulan da tukumaya, sadaka. Katiwuji wa sadaka, kamilu ya lukuno, ya lukuno, akabala ya dijala. Sadaka tukum dijala, wadai tukum dijala. album yasti tambam yasti tambam de bulle tum yo bona bulle tum yo bona abbe do tum ko yoro ko yoro ko ko tum tum ni sibora ko tum ni sibora ni sul ki ya wala ra ki ya wala ya bi ومن كان ذلك الذي سيكسب يا مدكنا yéen nit ñëpp jageen ñu nax waa di jóg di dem damu bal di dem damu bal di bursuulu dëgg bursuulu dëgg ay ay waaye waa ngi yow la ko jox yow la ko jox ko ba tax mën na ko ba tax mën na ko maa ngi ci moom jëlaat sa kawar jëlaat sa kawar kaw lu naa ci bay daga tax bay daga tax nga andi ñëpp ngor ñëpp ngor aw sasam dëggul bu bara dëggul Sëriñ Bamba Sëriñ Bamba Sëriñ Bamba Sëriñ Bamba Sëriñ Bamba buri di ana bu sëpp te am na ka di bëgg am na ñëw na am na ko ngor jaam ku ko am ku ko am wiiru may la du bii xam nga te du sëriñ am na sëriñ am na tapi jël na jël du ko ger yàlla buur bi mooy ki ko far mooy ki ko far bu ñu ko lii ñu dul ko dóor ñu dul ko dóor mag babal la ko sax waaye benn la ko waat sëriñ Bamba tax lu mel ne kenn du ko ñaan ne kenn du ko ñaan xam nga fi te daa bari leer daa bari leer ñu ko ñu boole ca wax ñu boole ca wax si ñu ñu ñu boole ñu boole Moussa Sagana ñii la ma wax ñii la ma wax sëñ Tamba sëñ Tamba gaayam yëpp ñoo yor yow dara jaal di man liiru waaye loolu lépp war na jaay loolu lépp war na jaay mos na jaar ci ab wane sax si Bamba Bamba jaay defal ko war na tane war na tane o ñu jigéen ñi dama ni dama ni war na jawaa na ko ne pour ba sagane ci doro ci doro loolu naa bi ka beneen yaa ka beneen yaa ma jëm si andi yeneen andi yeneen te ba dara mayu naa

ñaan sax Mouhamadou Mountakha seen ko ko yor njabootu Serigne Touba yëpp ñoo ngi déglu bu baax di nuyu bu baax borom kër yi di président Mouhamadou Gueye bu ko bokkee bu baax te yàlla boole ko jàmm boole ko ak i xéewal te yéen yàlla ko yàlla mottali barke xasaay bi yàlla moo dogal euh, kër gi moom fi mu ba tax na ñii fi ñëw ñëpp suñu dem la ndax ci dëkk bi la dëkk te suñ Modou moom lépp la ñii fi ñëw bawoo sow ñii bawoo fekk ak feneen ñii tabi yonent bi ñii du xam ne ñëpp suñu gan la ñoo war a moo waral rek ñu ngi doon jublu ci leen suñu yéene dafay mën leen a bàyyi ñu yaatal bu baax su ko defee ñu mën a ci yeneen barab yi moom dafa yéene yi ah, suñ mboolu nag day nit ku baax koo xam ne gannaaw déglu ko bu def production bi rek daf ko ndax ci ay loxoom da koy bàq saa su ne di wax ni lépp lu mu am mu nan ma yàqal sama tali bi sama diggante sëriñ bi yàlla bu ma ko am loolu nag wax ju woyof la ci dégg te gis lool loolu waxi pas-pas la kon nag ñooy ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa waxam yàlla ko ci yàlla taxawu li mu bëgg lépp yàlla ko am te bu yàq genn dara bi dàq xasee ay magam yàpp sëriñ Moustapha yi ñuy toog moo du comme nga dina kat xolam ak yeneen yëpp a ngi fi ndax bis bii ñoo ko waxee léegi tàmbali ba rek ci wàllu politique خرجت يوم السبت سامي العسل في خدمة المختار في سبع سفر نعم هذه بقي سائل أسوي بالتحسين يوم الخروج سكن الخديم dem ba ci biir mu ne dogal ko ne dem gii kon wala ma sa dem dëgg bi day yëpp dem biiram. waaw xam ngeen ni naggal yi bari na. waaye màggal su ko sëb dem moom sëñ koy si te loolu ca Mbàkke Baari Jolof di sëriñ maam Thierno moo da koy bëree ndar ba mu ñëw da ko maam Thierno bëggee nettal da ne ko Thierno dara mu ma wax ba nga taxawee ca déet dara ba xorloom yi dox sa tànk yi dara bëgguma wax daal di ko cër toogal fii ba yoroon ma dongo yi ak fu leen mën a yore ma dem liggéeyi ñibbi si ngeen añ nag noonu la ko defee kon Serigne Touba noonu amuñu fayam yàlla na yàlla doole taxaw suñu ba safaanu lii nuyu bu baax di la siyaare bu baax di la ñaanal yàlla day guddee sa rajo ji ah ba yónnee bu mottali ko noonu la ñuy saare bu baax maam boobu xuso bi mu ngi di kenn gënoon bés bi te teextaal at yi yëpp dañuy boole ci programme ba ñuy déglu Touba ñoom ànd ko moom loolu xam. sama diggante ak Modou rek moo waral loolu waaw ñu ngi nuyu baax madame Guèye soxna Fatou mooy di ko nekkal ci bis bi di nuyu mboolem ah mbokk si Modou yëpp nga xam ni yàlla dogal na ñoom bu liggéey seen xel nekkul fenn fu dul ñëw fii ànd ak sëñ Modou bis bi di nuyu Serigne Fallou ñam bii nga xam ni moom ku bëgg si loolu moom ak si Ngalani Sow mii léegi bi ñu ñëwee daa wax baat solo li mën a kóllëre waaye loolu wax cër ci moom bi la nekk kóllëre moom képp ku xam dara ci alxuraan am ko xam ndax yàlla lu nag ah la si képp xaadir waxoon daa am ko ko ci góor gi koo xam ne du ñëw ci moom ñu ko damaa bëgg fasal yow kóllare bi Abdou Khadre dañu ko mënta nekk ndax kóllare yàlla da koy laaj ëllëg te boo bëggul diine fasante moom kóllare moom mën na ñàkk kon nag day lu foor noonu nag la ñuy ne bu doon teew ci kër gi ñaari nit nekk fi ñun mën nañ la ñetteel ngir feeñ suñu yéene ndax li ñuy def yàlla tax ñu koy def boole kon nag ndaw ñaan ah sëñ yàlla ko yàlla doole tawféexal barkeb sëriñ Tuubaa yàlla ko am njabootam motali yéeneen ñoo ngi nuyu sëñ Jaaja mii xam ni fu ñu ko def rek ci man yàlla jaarale ah yàlla boole leen ca bu ca Dakaaru ba lii xew-xew lépp kon nag sëñ Modou sëñ Diaga moo lay ñaanal bu baax yooyu yaa ngi doon dogal di ñaanal sama mag yi sëñ ak sama rakk yi ma àndal ñëpp yàlla moo dogal gis ko rek waaye suñu yéene mooy ànd ko yéen ba mu jeex kon yàlla yaa ngi doon dogal barke Fassay bi sëñ bi sa wax nañu gëral sëñ nuyu sëñ Modou bu baax ne ko ñoo koy saara te di ko dogal bu baax kon ngeen def ñu ñaanal yàlla li ngay wax li tax wax di ñoom mooy dangaa daj lu metti lu yàgg lool ngir bëgg rek si mu dox yàlla mën na yàlla loolu day fayal sànq nag Modou Kara dangaa wax loo xam ne dëgg bu wér bari na lool baax bu morom seen seen mbàkke bi noppi baas la ma teg Serigne Assane Fall nopp baas la ma waaye jàng ci yàlla tax yombul waaye man de muy fii muy ngumba dem bu la fekk gis naa ni bu ñu jotee ku mel ni ñu ma wax la ñëwal dañ naan xaaral ba nit di waaye yow dama naan na ma sëñ bi rek moo bii xam moom taxaw d'accord nga ni moom ak alaaj saw bu ci ñaar képp nekkee moom di leen dégg moo leen gënal nit ñi wër leen ci dégg ñu dégg kon ni nga doon wax mën naa koo yàlla na sutura ci barke yeneen ci sallallahu alayhi wa la ndax jaaj bi dinañ ci daj lu ne sëriñ Saliou Pène saaman yi maa ngi nuyu mbooloo mi bu baax di wax wax bi sax mën naa bañ a bari mbooloo mi fi nar a wax ay kàddu rek nañ ko soppi ñaan tàppal ko ci borom kër gi nga xamante ni mooy Mamadou Gueye yàlla yokk ay xewal guddal faam bisu Serigne Touba rek wax lu baax baax na ca waaye lu wax lu xasaay xasaay ci mu gën kon jërëjëf sama mag yi damaa mënoon topp yoonu Tafa rek ku Tafa jox ñaari junni ma jox la junni baa ma jox la deux mille baa mille franc waaye boo ma nekk ay wax ci sama mag faaw ma fàttali ci ay kàddu ndax tey jii luñ fi nar a wax ci lu baax rek waxoon nañ ko ci suba luñ fi war a wax ci lu baax rek nañ ko def ñaan sotti ko ci borom kër gi yàlla yóbbu ku dul faral doo leen xewal waaye nag damay wax ñaar bi anam ak anam ak ci am ak lu wàññeeku kaay ngi bu baax. affaire bi nag mi ngi ñëw maa ngi nuyu Moustapha bu baax di nuyu mbooloo bi léegi nag kon xam ngeen dafa guddi ci heure bi dem ñu ne xam ñëpp mu ngi leen nuyu dañuy jox Alaaji Sow rek sama waa ji nga xam ne moom la àndaloon Darou Mousty te dëkk maam Thierno Ibrahima Damal Darou nga xamante ni. keroog bi muy dem dara moom rek a jëmee dem dara kon allah ji dugagul rek ñëwal rek. jërë ngeen def sëñ Saliou moom ngi siyaare bu baax baax kër gi góor jigéen mag ak ndaw pour liggéey rek danañ waaye mel na ni bu ñu tuddee sëñ ku mel ni Moustapha ak Asmaan bii ak sëñ Saliou day mel ni tudd waaye dem di nuyu soxna si toog di ma dem di soxna Fatou di nuyu magam bu baax sàcc rek moo bëggul ku ko yëg te keroog ba ma ñëwee ci kër ga mu tombee koor ñuy ñaanal seen way juróom Fatou laataa mu maa teral magam ji moomu njëkk teral jox ma xaalis bari ma tàggu fa yonent bi nit fàtte lu baax soo ñëwee di mag ci Fatou ànd ak moom bu ngi ko ñëw fii ci dëkkub sëñ Tuubaa bi dana la jox sa wàccuwaay kaw ñaan ci doole yi Moustapha sunu borom defal leen taw fi di siyaare soxna Ndeye Niane madame Guèye jigéen bu baax ji madame la maire soxna Ndeye Niane maa ngi lay siyaare bu ma limee rek damay juum te njàng bi daa war a dox xam naa rek dañuy dugg ci njàng bi te nuyu nag sëñ Fallou jarbaatu Modou Guèye bii di Pape rakkam ñu bokk woy jur Pape Modou du cuune de jàmbaar la lool su yaafusul dara du fi ñàkk waaye day jàmbaar maa ngi ñaan ci doole si Tuubaa sunu borom defal ko tawfeex waaye ma dem tey couleur nga gis maa ngi lay ñaanal ci doole yi ma suñu borom defal la taw fi koo am rek di ñëw ànd nga ak moom te dara waralu ko lu dul sagal sa borom kër bu baax bii nga xam luy teraanga ci àdduna defal la ko ñu man bu fi kenn nekkoon sax nekkoon sëñ Fallou maa leen war ñaareel ndax maa ngi nii ndax seetlu na moom teraanga yoo sëriñ bi rek lañ koy seereel Cheikh Abdou Lahad moo ngi lay ziare wa inni u'iizuhaa ذريتها من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مناجاتي وأبدا أخنا يدي رماتي زدهم سالنا إلهي بالمناجاتي أبدا وأبدا أخنا يدي أنهات دلالي العلماء

أبدا خير المرام خسدني خسائب الكرام وجيت خذ أبدا خير المرام هديتي مهديلة كل مريم كنمنا سأل أخساه الملك ما تاج نصار الله ليم بلا إله إلا الله لم يخلق مثله بكلو بكلو بكلو لم يكن مثل المصطفى محمد محمد محمد سر الوجاء في البرايا محمد محمد محمد نفسي آخات لكل سماء يقود به زائر والباطل من أتاه إلهي في كل زمن زمن خدمتها أن يا صباح لكل من قد رد له كل من خبا محمد ميزان لم يات خمام مدى وربنا الآيات محمد الميزان من يكون في سيدنا محمد محمد محمد محمد ميزان لم ياتم فيما مدى ثبت ان ربنا لم يرد مثل ومن لولا لو زيادة لو باع يوم لا صور لك سواء والنبي والرسول والخليل والأبي والإمام والتدين خير جماعة وسنوا قدوس والخير كما كون نبي المنتهى معتدي خير الورى المختار عند صمدي كون نبي المنتهى محمدي خير الورى المختار إن سندي على الأتيخ باب الكريم أقل زوخ كل رداء أما الوزير سيف المسير رد الخدير مجري الخدار على الديار الخمال خير رداي من سبقاي على الخريب ليس الغرام ردا مجيب بما ارتخاي محتاج بالمسار وبالعباد ومن كمل رضوان من ضرائبا وعليهم وعلى الرفيع الذي يتطفل ضيف ضيف يرتجي من خلال دينه ولتولى من والأرض مدبرا لله بالقرآن من نخمة منزل أقبي وبخدمة مع النبي والتي من أمر لا يجلو أدلو رديت ورديت وارتدي كوني ردي يمين خد يبدلو هب للمنى وعلى الوسيلة سميا يا من يقدم من يسعى ويفضل الله يفضل مكي من يبدو في المجر ما يشيخ الكريم kan alaaji Fallu ana soppay Sëriñ Fallu yi na ñëpp def nii ma dogal alaaji Fallu Mbàkke xol moom bu la tuddee mu tooy waa ñu la reemoo ay baayu mel bu la bee ñu sooy Cheikh Alaaji Fallu Mbakke xéewal kon loolu teddu la day laa mën a daa tax ne nga xam na du la loo wax borom bu nga gaaw koo def ndax yaa ngi ba wàllu diwaane seen boodoo ma xam na la bay ci wilaayati Alaaji Fallu Mbakke yaa yor fondu man ko ci wér seen ngaa jiite moo leen pour naan wane wala pour naan Cheikh Abdou Karim Alaaji Fallu Mbàkke àggale lan sëtu Mbàkke mu soo bi gëm na mbaar ma mu si ba joon soo bu leen mu jëm gaar ak ak fii laa ko yemale sëñ Fallu moom xam na damay jàpp ni rek ku fi ñëw man sama gànnaar sama patron ngi nii. moo doon jàng ba suba. sama patron ma li ko waral mooy li ñu jógee. te asmaali mi ngi nii war a war waxtaan. sama ma bàyyi quoi. sama Cheikh Abdoulaye ngi nii. kenn du ñu war nañu fee jël yéen. te guddi gi daanaka màggat la. waaye maa suñu waa ji président Modou Gueye bi fa jàmm fa mu nekk koy ñaan ci barke président yi barke rabbi karim bi doon jàll yàlla na ko sëriñ bi taw fii fa nekk tey de ku ko gisoo léegi benn xolam la ci nekk mooy mu nekkoon Touba boobu nii yéegi ci alalam di perte loolu rek moo nekk ci xolam ndax moom taalibe la moo koy ñaanal fa mu nekk suñu borom defal ko taw fee wax dëgg yàlla lu dul doy loo ci am dara yi doy waaye sëñ Fallou soxna Fatou bi dafa yaakaar Baye Niass waa kër Sidi Hadji Malick nekk te bu yaakaaree bàyyi borom këram yaakaar si tubaab ñëw fi sagale ko nii war nañ koo sagale ci wax dara ci bàyyi ndax kenn ku ci na nga am ca ngay te moom mii bu lóor na gis waaye damay wax ni jarbaatam bee rakkam jee di Pape man bu ma ñëwee ca mairie maam Maodo aw ma fa sens kay turi bureau fëgg damay ñëw rek ni quartier mu ubbi ma ne ko nangam laa soxla mu defal ma ko na ko bëggee maa koy ñaanal ci doole Sëñ Tuubaa ak Maodo yàlla na yàlla dëpp kàttam te defal la tawfeex Allah Allah Baay Ñas borom xel bi jógal taxaw mu màggal baay des faratak suñu daaw ko jaaxaane sa sëriñ moo jàggi saytaane moo ko daane jàmbaarul islaam nga di sa góor muñ te yaatu dewen yaakaaru ñépp nga yow doo gàttu doo nga nene li tax nga mel nii nga mel baay des jox ki koy foo igalal ko boole ko bari le ku sopp borom faydu bi defal nii sëriñ baala ki koy foo igalal ko boole ko bari le baayu ñes jàpp naa fi yow mooy naa fi yow foo mën a jëm yow baale yàlla ak sa barke maa la gëm doo dox di gëstoo baayu des lu ñëw ci yow nga saafara xoolal soxna Faatu yaa ko saafara yaay jaaguloo na ñëpp na fi mu magal baayu des soxna Faatu yaa ko saafara. jërëjëf kenn ku ci nekk ca la nga am Ba yàlla nañ ko teewee cent mille doo ko yi ndax lii mu def dafa couleur ndax ay jàng saa maam nee na jàng saax way may te ne ab jàngkat bu dee jàng ngay ree bu yàggee day tàyyal waaye bu dee jàng ngay sarxe day sawar sans waa ji boo gisee ni mu jàngee xam ne gëj koo jàngee man damay dajeeg moom di baas day ñëw di rek waaye tey dafa jàng dëgg kontaan naa ci moom di nuyu Balla Sow euh, saxu naa loolu ndax man ak te Mame moo doon wax nañ leen dem fële peex gële la ñu dëkk étage yaa ngi nii télé baa ngi nii courant baa ngi nii kon nag suma ma bokkee yow jóge peex ku jël kàddu gi ni maam Moodu rakki Moodu Gueye maa ngi koy gërëm man sago ndax bu ne woon nekk bu dañooy àndal peex mën naa la wax ko de sekk ma jóg ndaa ma baaba ma ci ñi waaye ay jàng ne mën naa la wax tam si Mori Mbacke ma ca naa waaye ay jàng ne ci sa waay moom boo ko tuddee rek dëkk bi yow peex nga ñu dëkk bu ñu dugal néegu góor woo ko sant mbay woo ko sant buusa lewetal ko pare man sama turandoo bi ma tuddee maam la ci moom moo tax ay jàng lañ ne du wax ko de sekk ma jóg daa ma baaba ma ci ñim xasaay du wax bi jaay xasaay maam si xul sa baay peex soo musaana tëdd sa la bopp bee metti sa baay buñ jëlee kaas bi ci ñaanee ndox bu waaye nag tey xasaay dañuy wax kon nañ jox fàllu te daf laat ñëwal waaw ngelaw day dimbali kuy jëli te daf laat bisimilah ah nee nekk baax na waaye xam nga sëñ Abdoulaye bu xasaay rek la ñuy wax waaw waaw ki yor kii bi waaw déggu

وأعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون maa ngi siyaare bokk taal bi kër yëpp di ñaanal sa Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool di ko ñaanal lool teewal sa njaboot yëpp di siyaare mboolem ñu fi teew di siyaare bu baax si Moussa Ba di ko jotal siyaare président Mbour Mbaye kon jëloon na ko bu baax moo Moustapha ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di ziare si daaw di jàmm ak boo leen demoon fii yëpp moo ngi leen di ziare di leen bi wàq leen fu yàq eggul ak tamit saa yi moo ngi ziare bu baax suñu yaay ban sawu moom it di sunu waajur di sunu soppe di waajur ci sëñ Mouhamed Thiam ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko di ziar baax soxna Fatou Faye ak mbooleem soxna yi teew yëpp rek di ziar seen laaj yi di doon yëkkati léegi di suñu mag ñaanal yàlla yàlla barkeel di siyaare bu baax si Fallou suñu nijaay ñaan si borom dafa ko feex waaye moom di ziare suñu sëriñ suñu xarit ak maam Malick nga xam ne moom kenn la ci ñoom di nit ku baax di nit ku bëgg lu baax di nit ku mën a rafetal am na ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiq waaye jënd bi sallallahu alayhi wa sallam di ziare si Mouhamed Thiam si maam Mawlo yëpp rek ñooy lim rek ay ñi fanaan waaye ñoom cofeel gi ñoo am ci suñ dënnu te jëmi xas yi rek waral ko loolu rek doy na sëkk moom la ñu ñaanal yàlla yàlla defal ñu tawfeex te yokk seen i xéwal ndax lépp loo xam ni yàlla jox leen ko rek ñoo koy bokk ak ñun ba ci màggal gii li ma ci sol mu xam ne da ko ñëw jënd ci si ndax lépp jox ma ko kon nag yàlla yàlla yokk ko bu baax ba jàmm saa yi te ñu barkeel ci rek.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 وتقبل مني بوجهك الكريم قولي تائبا إليك أستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زوائر ومن عيون زمائل لنور سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي قلت له من جملة زقائري مع الكبائر ومن دمائري تقدم وما تأخر وما بينهما اكشف لي الاسرار والغوامد يا خير من كشف شرا خالدا لجمع جميع ما تفرخ لدى حتي من الخير وسف خلدا لي قد لدى تفكر اعظم مياه ربي بكل وتعزم القلم يا هب لي يا أكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والعلا بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وقم الآيات أبي كوني بشرى كل من يتوب ولزواهر أبي مع العيوب أراني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعترابي له شكوري على آياتي عبدا قديما فاز بالآيات أشكره شكرا الذي نسلم من عبده والامتنان خربوا معجزة كانت لحسن خيري يجود يجود للجواد بالجياد رسول يكون سنخيادي عيان يا الباخي بلا إماته جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليه تسليما ونفعا انفعي داخل ابي الى سكور من شقر للقلق بقاء فامنا سبيلي والعبيد وقد معتي الداعي التبيب برأني من كل عيب ومرر وخاد لي سعة في كل مرر برعت من عيوبي نفسي باتجاه إلى الذي أبابه لن ترتجاه مؤمن يا بنسيب التجار إلى الذي أبوابه لم ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل زون وأذن وجنتي يا مخالو سلام عن سلام له بآله وأفنى للملا رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات أعلى زدت له أبدار عبدا لنا مدين زمني وسب الخلدا بكون ربي خلي إبي ولجالا أسرا خلي واجعلي حلاوة الدارين وفيما جعلني جارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول ويسبي ووصت منه خير سول من ابتداء من به باق الدفع أزن توجه إلي فاندفع حكم الحكيم وهو الحكم ومنه تأتي المنى والحكم يقول للقدير والعليم معدون العلوم والتعليم نفل قبير عن فؤادي جعلا سرت به للبسيع من عالى برأني العليم بالدلال فسرت مقسطا بلا إقلال مالك وما اخترع كل يتيم من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله الأروم آيات منزل الكتاب النزلي وإنني عن العذاب معازلي إذا تلوت آية نلت من مالك مملك قد أمرا تسليم باق لا يزال أكرما للذي لي يودي كرما أبقى سلام الذي لي خادا هذا لشيء بردا فانخادا هل يتلمني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مد يدي لخير من قاد المنى لي بلا أذن وكلي أمنا أذن في زمري وحدري بما يخالف الرداء المدري لله في الدارين بالماء يدي بأكبر رضوان زاد خيدي لي خان بالمختار ربي كلما طلبت مع رداء مسلما حجتي بالمصطفى في أبدي بلا عناء أو وزن أو كبدي من زنان يكون أبدا يرضي بالذي كخدمتي بدا نفيت زنو بأني الخديم بما أنا المزيد كل خديم فرأوا السلام الطريق الذي ضيقني من العدا عليك سيما مبيد من عدا لكل من ضيقني من الخبر ولم يكتب دنيا واخرى كبر هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل بيادي وجع ربي بقديع الزمان سجود الكريم والكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم حل وهب وبي أكرم رديت عنهم ووعني راده وكان لي بالأمن في أخرادي واجعل الجميل نعم من جميع ولسوى مرتاح نما الذي لم يدعي وستر سري وعيبي ومبيات الساعة بلا زمان بارزني بلا زمان يبارز الزمان بلا lan mooy problème bi. yu baarisul muntaqiman baari zaman isa talatu min ilahi jalaba wa in sharatu bi ilahi salaba lii jaadat bi tawhid rabbi al ahad مسجد لي بقل هو الله احد له مدادي والخلام في غدا وابدا لست الاخي من عدا جل الذي يبارز لا الجليل ذل الجليل فوق كل زليل يا من يرى خير الاله ربا إلا الظلمات مدى الكبادي الغداء والقدمات مد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه مد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن الشيوخ والأرماه الباري مدى به قد صرت مثل الباري غبوت أفضل الورى في البر بغير مده جاد لي ببري قدمني في البر والبهر معاً بعد ربي والكتاب سر قديمه وذا زانيتا محمد خير جميع الكون وذا خير قديم المصطفى فإنني أخديمه وحده يكون أبدا يرميه بالذي كحكمتي بدا فقره الدلال والإدلال يلقى لي منه به الحلال مداده خط لدى للبروري مدى الونا عن كل ولي مداده مدى

ابنه ابو الحسن عليه رضوان يقلد الحسن رضي عني سته تجاري عليه رضوان مبيد الجاري رضي عني خلفاء اربعه مسردا مقربين متبعا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 donc dégg na bu baax day ñaan lépp lu ñu ci jàng. jërëjëf. lu mu leer lu bëri. te moom di sant Mbacke. te moom di sant Mbacke. waaye bu koy Mbacke Mbacke. moom Alaaji Malick. moom Alaaji Malick. yaakaar si Alaaji Malick. yaakaar si Alaaji Malick. ah maanaam yor tarixa bi. maanaam yor tarixa bi. am ndigal la. ñu ñëw ni fii lay màgg. ñu ñëw ni fii lay màgg. day wax képp ku ñëw. day wax képp ku ñëw. da koo boole jël. da koo boole jël. daan ne nan la jox. nan la jox. ndax da laa bëgg a dégg. da laa bëgg a dégg. ndax yow bu lay dégg. bu lay dégg. day aar ci am. day aar ci am. boo demee. boo demee. da nga koy yóbbaale. da nga koy yóbbaale. ba bëgg ngeen jàmmoo daan ngeen di ngeen di jox ma ko ko leen. jërëjëf jërëjëf sëñ Fall bi xam naa damay barkeel rek ci sa Fall moom sëñ bi Fall ndax bi ma demee màkk keroog ci teg li ma moom yi dama wax ni bi ma demee màkk ci kóor dama dem ba jàkkaarloo kaddu yi ni fii dama fi jàng mooy bi dafa mel si fi ma taxawoon di ko jàng foofu dañuy naari bi nangu ko ba taxaw waaw dama taxawee di ko jàng yëkkati mooy bi sàmp ko policier bi nekk ci buntu kaaba gi taxaw ci porte taxaw jàkkaarloo man ba mu yàgg bil ma fi nga xamante ni wax nañ ne fa la maam Ibrahima daan xamee dugg naa ba foofu jàng fa ak maayu dafa andi si keroog nag bii suñu maam Modou nii di def cantam yi ma wax ko fa suñu safaani ma ma yëkkati xas yi ay bay ndax comme yëkkati naa ci kanamu Kaaba nag ñu barkeeloo ay maanaam boo demee Makkatal Mukarram gi nga xam ne si tubaab liggéeyal la yàlla liggéey boobu yàlla na. suñu xaar damaa essentiel boo bokk ak naar essentiel nga bokk ak moom bu dee ku ñuul boo bësee essentiel bi bu ñëwee gis nga nit nit ku ñuul dugub donc dañoo rasis waaye loolu li ma ci jàngatee bu am naar bi rese ci nit demee ba lay fóot di la raay di suñu man boo ñëwee sama kër mën naa la am ay peere daal yu bëri yoo xam ne naar yi sama dama ko jox di la jox seeni i parfum di la fóot loolu Sëñ Tuubaa rek moom man ak ak man li ma fekkee conséquence boo xam ne ñoom boo bokk essentiel bokk bi demee ba lay yi xam ne kenn du Sëñ li ñu am parce que Sëñ Tuubaa mooy lépp mooy lépp mooy lépp Sëñ Tuubaa def ci lépp te sëñ moom su ma jéemoon maa ngi doon 2017 fi lañ toog may jàng mu laaj seen bés yi keroog dafa daanoo ak jël am lu ma dee la wax nag moom la woon ak yàlla ak Sëñ Tuubaa doon fànn ci bis bi amal loolu timis ni ma nangam la waaye dama ko fase yàlla def na ko kon moom bëgg kenn di wérante moo tax jàngul xasida yi ñoom si alaaji si wàllu seen xaalis mbay mi kenn ci def ko def ak yàlla kenn du yóbbu. sallallahu alayhi wa sallam. xaajuma ko si. may seetaan day wax sa kër. boo dem ñu wan ko tànk yónn bi tegoon tànkam. li nga xam ne moom la leen soloon yëpp doon faatu ko di ko wan. man la ma ci jànge moom. comme sëñ Tuubaa li nga xam ne nii moom la am solo am tool man dimanche laa ci jàng loolu. waaw léegi alaaj sax damay tëdd li ma la doon foofu sax boo dee màggatal mu karam fa yënati tëdd ak fi ñuy ak fi ñuy jullee fii ci jumaa ak fi ñuy jullee ñoo tolloo waaw ci armée yi nekk yi njëkk yi nekk boo génnee ci jumaa ji dox jëm ci ak boo génnee ci raw la yonent ci jëm bàq yaa waaw loolu maa ngi محمد يا لك فالحتال هل مجال مسرورا أبدى الخيورا هذا سرور رس الرجاء سفى السخيما نفى الأليما هذا الخديما إلى النجاه نزوري إلى الخزور بعد نزوري بعد البهاي حيث أباد من استفاد ليس أباد عند الدعاء دب يسلم دير يعازم كسيدهاي سرح تسير عيس يفور دير تفور بلا رسالة ربي أسرى بهبه ليلا بقربي مع البلاء حبات يشري من بعد تريه قديم بسري في الأنبياء سور الأمين مع الأمين الأمين للأسيان وزنا عنهم بدرت قال بميري لأهل قيري وباب ديري أهل سقائي حسد ما لا فقد جالا جاز المجال بالاعتماد الجلال يا متوالي يا خير والي أجب دعائي سل وسلم على المكلم وضر ياسين واسم رعايه والحائل سل الدوام وسد سلاما واذكر خلاما لوبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة حي السعادة لي باغتنائي مصائبي طيب قضائي يا ذا الوجود كلي بجودي وجل وجودي فوق اللدائي هب لي ردائي لكل رائد واذكر قلامي وعمل كلامي بلا ملامي ولا امترائي سدد لساني نور جناني شفي أمالي وزد برائي أسألت ديرا متميرا هل تكفي جورا لمن يرائي عن استيالي من الضلال وبالحلال قلب الشرائي المتابة يا ذا استراء يا خير الربي خير المرابي غيرت قلبي بعد ابتدائي سلمي وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتحاء وأسقنا ماءها من ماء كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يردد ذا غير ويملك ذا وينشر من يقزى يا الله محمد مستقر علي عليه فاهدنا ودمرا كل أعداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عادما من كل محلكة ونجنا من بلايا دار يا الله وآفة آهة مقوزة محن زلزلة شدة والفقر يا الله برق والبرق مع شرق والتأتي الله حلو بد والنحب كربة بقم دلالة عرج والغم الله وامت وقتايا دلالة والمسق والقس ثم القسي الله قل لنا عمرنا وافتح لنا بدنا xawir lana umrana saxix lana badanan maa ngi ñaan ku nekk ci jotaay bi di bëgg Cheikhul Khadim la jub taxaw ma joxe rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lana rusda wa tawfiqa yàlla sëñ Bamba ne tawi lana umrana yàlla maa ngi ñaan suñu fan yi yàlla du ko guddal waaye bu ci yem saxix lana badanan suñu yaram yàlla nga ko wér tawi lana umrana sëñ Fallou nit nit nit lu mu gudd gudd gudd fan bu ànd ak feebar gudd fan ngeen néew moo tax Cheikh Khadim tàllal loxo boromam ne ko yàlla maa ngi lay ñaan gudd fan wi ma lay ñaan yàlla ànd ak wér gi yàlla mooy xam la na waa danaalu sawa tawfiq yàlla fi ndam la ne yàlla lenn rek la bëgg mooy li dañu ko tey Touba wahab lana rushd yàlla maa ngi ñaan yàlla nga dindi leen wa tawfiqa di nga defal leen tawfiq yàlla bu yow suñu borom. tamit kulla a'daa'in tudiiru bina. yow yow mi nga xam ni yow loolu toroxal mboolem koo xam ni daa ko nekk jaxati mbir yi bëgg koo faax yow yàlla yàlla nga ko toroxal. qabla al-wusuuli lanaa yallaahu yallaahu. yàlla li may ñaan nag kenn laa bëgg nga def ko balaa ñu egg ci yow yàlla yàlla nga defal ko sama taalibe yi man Cheikh الجل وادل لنا قل لنا دين والشيطان يا الله yàlla yow nga xam ne yaay tegtal yaay tàggat yaa ma tàggatal lépp man Cheikhul Khadim ba mu mën koo poñee lu mu mën a doon ci lu yàlla bind Cheikhul Khadim nee na am naa ci kàttan. war la naa kulle bi saxbin wa diyaarin. may ma tuuti ma nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. di leen baalu xàq te di leen baalu maa ngi jiital ci nuyu bi Moustapha waaye maa ngi nuyu itam suñu yaay Ajaratu Bal Sow yaakaar naa ni bu ma ko nuyoo bu ma nuyoo Moustapha ci góor bi nuyu suñu yaay Bal Sow ci jigéen ñi ñëpp mag maa ngi ñaan fi yàlla yàlla defal ñu fi jàpp tey nag man damaa bëgg a waxtaan ci Cheikhul Khadim Alaaji Maalik mooy sama sëriñ alaaji Maalik rek laa bëgg waaye ci Cheikhul Khadim laa bëgg a wax. ndeysaan. soxna Fatou lu ma wax nag wax naa ko barki démb ci ngumba sëñ daaw daa ngi toog ma man alaaji Maalik fas yéene wu maa wax nu ñuy wet nu wax nu ñuy wet xam nga lu tax. bàyyi laaj. mooy man lu sama bët bi tegewul du ma ci wax. lu ma dégg lu kenn di nekk. yàlla xam woon ma jëndee téere su ma bëggee wax ci Cheikh na Cheikh Saadul Albi damay dem jënd téereem liir su ma bëggee wax ci Maulana Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass di sa waay doon wax damay jënd téereem liir waaye bu ma bëggee wax ci borom màggal gi Cheikhul Khadim damay jënd téereem liir. xam ngeen lu mu bëgg. wax naa Cheikh Xadim Ndaw Mouhamad Thiam dañoo nuyoo ci suuf. Fatou nee na sama joxe ñaan ñu ne moom maanaam. tey moom xanaa di nga gàmm. sama joxe ñaan ñett la jox ana man mu ni moom maanaam. tey de xanaa di nga gàmm Mouhamad noonu ko wax. ma ne ko waaw loo ci jub. alal ko man ñooy. nga ne ko ba mënuñu nekk. xanaa tey la war a gàmm gi gën a neex ma ne ko incha allahu taala te daaw la ci kattanu yàlla incha allahu taala damaa fas yéenee wax. xam nga lu tax ma bëgg a wax. xam nga lu tax ma bëgg a wax. dafa am lu am ci réew. màggal bi ñuy def da ngay dugg ci tiktok bi. seen benn waay mu naan màggal bi daala. màggal bi daala. damaa bëgg woon ñëpp ni màggal bi bindaa Cheikhul Khadim lu wax dëgg la. jërëjëf. baddalakum allahu xayran yàlla bu ngeen ko ñàkk. Cheikhul Khadim laa ñu lu wax dëgg damaa liir ci benn téere waa ñu ñeme yàlla mu ni suñu mag ñi ñu am ci suba maa ngi toog yor sama clavier naan wax xëj bu Serigne Touba waa Xaaji Malick wa alxaaja abdullahi xubban mutahira muy weddi mag ñi mu ni mag ñi li ma yéem ci ñoom boo leen laajee lu ñu xamul wala nga laaj ko seen taalibe yi ñoom day yaquluuna adraknaahum bi zawqi laytahum yazuquuna taama alxaqi fa alxaqu ka shahdi mu ni gars yi heure boo leen laajee lu ñu xamul rek dañuy toog ba mu yàgg di wax ni nii ci biir yàlla bi la leen dalee Cheikhul Xalim ne man bokkuma ci ñoom soxna Fatou Bali mi borom màggal gi Serigne Touba nee na mboolem lu ma am rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Xadim ne sama deret sama njaboot mboolem lu ma am jox na ko jël nag ñu ni Serigne Touba bindal mu ni dem ni wa ahli wa awlaadi fidaa'un lahu abdan xadiman lahu muskaanan li sanada sëñ Bamba ne dem ni sama deret man Cheikhul Xadim hmm. wa awlaadi njaboot gi ma yàlla jox wa ahli njaboot gi njaboot gi njaboot gi ak li ma jur ñëpp kenn laa ko jébbal muy sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam alaaji sa lépp ni Sëriñ Tuuba doom ju mu am yonent si yàlla Muhammad la ko tuddee kaawam bu ko tuddee du Sëriñ Moodu Mustafa tuddeewul Sëriñ Faay tuddeewul Sëriñ Fall pourtant boo xoolee turu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu mu ci doon dana fekk li Cheikhul Xadim def li Cheikhul Xadim def da ko fekk ci turu Rasulullah damaa dégg léegi damaa dégg léegi Cheikh Abdoul Ahad am lu mu wax mu ni dama dem Makkatal Mukarrama may jàng xasida Cheikhul Khadim yi waaye jàng gi may jàng xasida Cheikhul Khadim yi léeg-léegi benn naar simmi ay dàllam jox ma ngir teralee ma ko ñii yëkkati seen parfum jox ma kenn ku nekk ak la mu ko doon teralee ngir yëg-yëg ga Cheikhul Khadim amoon keroog ba muy tagg Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam sëñ Fall yëg ni Cheikhul Xadim dund na ba génn àdduna wax te teg xàjjam ci rawu rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ Cheikhul Xadim ne ko waaw sëñ Bamba lu la tee dem ci rasulullah hmm. mu ni bëggoon naa dem sama yaram a gàlloon ko ñu ne ko sëñ Bamba bindal mu ne huwa alladi ayqa jismi an ziyaratihi laakin lisaani lahu ka qalbi sawaab ñu ne ko sëñ Bamba loo am sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nga ko jox waaw sëñ Bamba li la rasulullah defal nga nekk di ko liggéeyal subaa ngoon guddee bëccëg yaa wax ne loo am njool nag moo la ko defal waaye mboolem lu la yàlla defal li la ci gën a mooy yàlla def gim la def nga nekk mindaanu rasulullahi sëñ Tuuba bind mu ne allamani rahmaan bi safina li annani xadimu sil madina sëñ Bamba ne mbooleem lu ma am neex na ma waaye sëñ Bamba nee na soxna Faatu mbooleem li ma am li ma yàlla def ma nekk mindaanu rasulullahi moom a ci gënal ñu ni cheikhul xadim bàyyi wax ak baara maam yi danak cheikh buur ji tawloo Moustapha Diatloo Murtada bàyyi Sëriñ Fallou Mbacke bàyyi Sëriñ Salih Mbacke borom jamono xam nga lan laa bëgg xam ci rasulullah hmm. maara cheikhul xadim nee na damaa bëgg njool màkka di ko tagg suba ngoon guddee bëccëg dem naa ba nga xam ne bu may tagg rasulullah sëñ Bamba ni fi ma toog ci njaari wala fi nga toog ci Touba. da ngay dégg arsu suñu borom subhanahu wa taala di jaay. lii ko suñ Bamba bindal mu ne ida katabtu ihtada arsul baaqi wa sabahat malaaiku tibaaqi suñ Bamba ne dem naa ba nga xam ne ida katabtu bu ma tàmbalee di bind ihtada dafay jaay ñu ne ko suñ Bamba lan mu ne arsul baaqi arsu suñu borom wa sabahat malaaiku tibaaqi suñ Bamba nee na ma dégg malaaka yi nekk ci juróom-ñaareel asamaan kenn ku nekk di sabbal yàlla ñii subhaana rabbiyal aziim wa bihamdihi la ñuy wax ñii subhaana rabbiyal aala la ñuy wax ñii allahu akbar ñooy wax ñii naan allahu akbar kabira ñii naan walhamdulillahi kasira ñii naan wa subhanallahi bukratan wa asila sëñ Bamba ne man nag ki ma bëgg yaakaar ko jël sama lépp jox ko nga xam ni ëllëg yowal xiyaam bu ñu demee ba muuf ko ba war nga xam ni daal lépp ay tëj ñu ne sëñ Bamba fan nga jëm mu ne bu boobaa sama jëmu ji man Cheikhul Khadim ci kenn laa jëm ñu ne ko kan la mu ne rasulullahi sëñ Bamba bindal mu ne zaakal malaasul lazi arju najaata bihi dunya wa uxra fa lay ki xawlahu jaaw sëñ Bamba nee na dàq bu yowmal xiyaamee almalaaku muy sama wéeruwaay ñu ni ko kan mu ni alladi ki nga xam ne arju maa ngi yaakaar wan najaate mucc bii ci daraja moom sayyiduna Muhammad ñu ni ko sëñ Bamba ndax yaakaar bi tey nga ko am muy dunya fii ma nekk ci àddina maa ngi koy yaakaar wa uxra alaxira maa ngi koy yaakaar Cheikhul Xadim ne fa lay ci ak a neexoon xaw na ko li ma wër yëpp jaaru ñun ñëpp ñu ànd dëkkaale ak Seydina Muhammad ci aljana te soxna Faamu bu ëllëg yawmal xiyaama yonent bi moo ne almaru ma'a man ahabba kenn ku nekk ki nga bëgg moom ngay àndal ne man ahabbani kaana ma'i fil janna ku bëgg ma bëgg man Seydina Muhammad yonent bi nee na sama mbagg ak sama mbagg ba biir aljana Cheikhul Xadim bu ëllëg yawmal xiyaama gëm naa ni rasulullah yi day jiitu Cheikhul Xadim topp ca taalib yéen ñi ca topp ñoom Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Muridi ñoom ñëpp kaa ñëpp ànd xam nga fan la ñu jëm hmm. ànd lañ jëm wax léegi ne Cheikh Xadim moo wax ne man van na man van ne nii xëy na xadimil Moustapha. man mii xëy na xadimil Moustapha. dégg nga ah li ma dégg mooy man van na nii xëy na xadimil Moustapha alhamdulilah. man van na nii xëy na xadimil Moustapha. Cheikh Xadim ne man van na nii mboolem koo xam ne da nga am jot ne man Sëriñ Tuubaa xëy na xadimil Moustapha nekkuma mbindaan ci yàlla sànn loo ci teg. فإنني أقديم بما استفى si eh, moom la nee na xool li doy waar li doy waar yonent yàlla Moussa yëg nga ni daa tëdd benn bis mu jekki-jekki ne yàlla daa am benn mbir bu mu bëgg yàlla ne ko Moussa loo bëgg mu ne ko yow laa bëgg a gis yàlla ne ko boo ma bëggee gis fekk ma jabalu tuur alquran ko nettali walamma jaa Moussa li miiqaatina wa kallamahu rabbu qaala rabbi arini unzur ilayk Moussa ne yàlla won ma ma gis la yàlla ne ko lan taraani walakin unzur إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين شيخ خليل لي يوم من جحتني من نكم من ذات رسول الله من دلني غير خليل من دلني غير خديم يا مصطفى وأنا في قبب شيخ خليل boo xoolee ba xool li ñëw Touba leer xam nga ko ko waral borom tukki bu sori beeg sérité bu baawoon bi kay gaa yi nekkoon ne dañu koy sànq ñii ne nañ ko dabi ray ko ñii ne nañ ko jëli ray ko yàlla ne yàlla ne hey gis nga yéen ñiy garde yéen ñiy garde rasulullah yéen ñiy garde rasulullah njool màkk nekkatu ndax njool màkk dañu ko daan garde keroog ba yàlla wàcce wallahu yaasimuka min annaas lañu ba gëj a garde sayyidina Muhammad te lañu naan fa alal waaris yi maalil mawruud ñeen nag ci doon mu lañ ne loon kañu doon kon bu Cheikhul Khadim buñ ko ñëwee dal ko di ko yóbbu ngir sànq ko yàlla dana wax ak gars yi doon protéger Rasulullah ne leen kii xam leen ne ci ñu doon Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kon gardé leen ko Cheikhul Khadim nee na gars yi bi ñu ma jàppee wax ma géej bëgg maa sànq kenn ku nekk ñii jàpp ni ne ñoo bon ci man ñii jàpp ni dañ maa bëgg a aar ñii jàpp ni dañ maa bëgg a yàqal Cheikhul Khadim léegi ku ma ñu ne ko sëñ Bamba koo gis mu ne asiru maa al asraari xëy na asiru wasanna ila anni hunaka asiru sëñ Bamba ne asiru maa ngi dox ñu ne ko Cheikhul Khadim mi ngay dox gars yi tubaab bi nun doon réaliser mu ne maa al abraar boobu gisuma tubaab bi la xam nga kan laa doon gis Aboubacar Omar Ousmane Ali Talha Zubayr Saad ibnu Saïd ak Abdourahman ibnu Awf fukk ñooñu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam dañ ma jaaral fi àjjana Cheikh Xadim ne keroog bañ ma jëlee yóbbu ma ca bax fa maa ma am maa nga daan asiiru maa ngi dox man bàyyi ma fag baara maal abraar yi gaañu baax ñu ne ko seen ba seen bàmba kay la mu ne xëy na asiiru jamono bu may dox sax te wasal na njortu na njortu na te na déedéet bu mu ko fi ne njortu bu baax parce que boo demee ci alquran bu zanna bu nekk njott na lay firi sëñ Bamba ne wa zanna wa zanna xam nga ñoom bu ñu njottee sëñ Bamba ne man wóoroon na ma hmm. ñoom li ñuy njott xam naa ni seen pexe du soxla wallaay ndeysaan xam naa ni seen pexe du soxla wa zanna al ila moom tubaab bi mooy njott li an nii man ne bàyyi fasan baara bu naa ko foofa affaire ci moom laay dox wala Cheikh Alaaji ne booba man wóor na ma gars yi mënuñu si man dara alaaji damaa bëgg nga def ma Cheikhul Khadim lu mu wax rasul am يبدو بسوء benn mag moo ne indi Cheikhul Khadim xam nga lu doy waar alaaji balaa ñaan ca tafsir bi man taalibi alaaji Malick la dama koy wax alaaji Malick dama ko bëgg alaaji Malick dama ko bëgg mais yàlla dafa ma napp ci baax mooy lañ dëkk sama way jur bu góor dafa ma ko wax ne la alaaji Malick am na loo xam ne bu ko bëggee nettali laa budda an nabudula kufaara jub dinaa fil mën na ñàkk ngay def effort ci jéem a dëkk benn mag dama ko laaj nag riir alaaji Maalik samay turandoo ba muy def Xilaasu Dahab am na lu tax bàyyi def am na ay baytam yoo xam ne ba mu koy def am na lu tax ma ne ko waa Cheikhul Xadim lam yëpp hmm. mislu Mustafa Muhammadin sirran wa jahran fi baraya xaladi waaw lu tax sëñ Bamba def ko mu ne ma sëñ Bamba daa bëggoon rasulullah ma ne at mi fukki weer ak ñaar juróom benn weer dama ciy tekk njool nag

sawtu in sawtu rasulullahi moo waraloon moom Cheikhul Khadim bu daan tàggu yoon màkk ba ak ci titre Mouhamad mag ñi nee na Cheikhul Khadim da daan wut baneen façon bindin moo xam bu doon safron la tey dama naan safron lay jël bu doon leneen la ma ne leneen la jël waaye Cheikhul Khadim daa bind lam yabdu bind mislal Mustafa dal ne ana Cheikh Ibrahima Fall lamp Fall baabu muridi eh. mu ne ko waaye léegi Cheikh Ibrahima ana ana ana ana safron bi tey bu doon tey la ma joxe ay napp pour ngeen dégg ana safron bi mu ne mu ne ko népp mu ne ko Cheikh Ibra lu nekk foofu lu ma mën a dajee ci sama cër Cheikh Ibra yëkkati dara jox Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim ne def loxoom dinañ ci génn mu bi mu Muhammad ngir man maa Rasulullah sallallahu yabdul Musa Muhammadi ba bare lam yabdu doogul feen listal Moustapha tamit ne ki yàlla tànn sirran wa jaaran fil baraar ya zamadi ci ndamay li nëbb ak li feen moo ko doon wër ci gis ku mel ne rasulullah ma dalla al islam wal kufra ma eh, ci bamane ci tàllal lislaam ba ñëpp jot ci waa Bawol waa Mbawoor waa Mbuur waa Dakar ñëpp jot ci muy Seydina Muhammad bu ngeen defee nii lu mooy yónnee wa di def siyaati li kulli samba eh, eh, dégg ma li nga wax yaqulu ki nga xam ne moo ñuy womat yu man baati yu man. sëñ Bamba ne li nga xam ne moo ñuy omat ci li feeñ ak li nëb. waaw maa ngi ñaan xanaa fi mu bëgg Cheikh Khadim bu fi nekkee nit mu ne fekk. changé ko changé ko changé ko changé eh, eh, lumière bu weex. changé lumière bu weex. خدمته عن الغيوب أزهبا خدمته عن الغيوب أزهبا والاستقامة وسافا وما خدمته خدمته خدمته خدمته عن الغيوب أزهبا خدمته لكي لكي سيدنا محمد والاستقامة وسافا وما ñaan président Mourou bi yàlla yàlla tuddal fanam président Mourou bi yàlla yàlla yokk teraangaam président Mourou bi yàlla yàlla dolli sagam waaye Ablaye jërëjëf xam nga ne dafa amoon waxtaan mu ne suñu jotaayu tey bii wax nañ cee jàngee lu bari Fallou Sante da nga wax allah ji saw ak ki fi jugee sax da nga ni ñoom bu ñu ñëwoon fekk fi naar te Mamadou dinañ dégg dara ñu wax daa ngi dégg wax waaye am na ñoo xam ne pour ñu mën a yëngal dégg faaw wax nga sant jërëjëf wax gi nga ma ko waxal ci am na fu jaar ak yow maak yow ba dama cee bëgg arab yi ñoo wax ni idaa busina al nit ki boo ko defalee xalaat mun na ko ragal ak ak nangu waaye mu ngi yàlla yàlla dina sax. waaye dañ ko dox dañ ko may dox dox baa ngi ñëw dox baa ngi ñëw. maa li mu am di ko jox maa ngi koy ñaan ci barke Cheikhul Khadim ci barke bis li ñu fi jàng ci ay kaamil alquran jàng ko ci ay papat nga xamante ni day bàyyi koo ci pays ba di wàcc yàlla na ko ci kenn du yàlla na sirb yàlla na sirb yàlla na sirb yàlla na yegg new yoon yàlla na yegg new yoon ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam amoon naa yéene nag wax dëgg fa yàlla wax la ëpp lii لك موجزات أحدث كل الوهاب معجزات أحدث الكل الورى لك معجزات أحدث الكل الورى ما نحن خليفة المصطفى من مصطفى وصفى ظل مصطفى وصف من القربى وينتفي من مؤيد لك معجزات أحدث الكل الورى koo xam ne mu ngi al Mustafa ci yàlla sax. laka mu ngi saadun aajasal kullal waraa. mais daal ñu def leen. Seydina Muhammad wax ko faa sellal na ko mu firi. laka mu ngi saadun aajasal kullal waraa. yàlla yàlla bi muy sellal Rasulullah tax diir bu yàgg la mu ne mi nañ qurba. laka mu ngi saadun aajasal kullal waraa. mooy borom ñaar ku ko yaa xayral anaami rafiiraa. زاد أنسا كل الورى

jërë jërëjëf wallaay bëgg naa na yàlla dolli sagal leen ajal tubaab yal na yàlla dolli sàmm yaa suñu yaay soxna Mette yal na yàlla bàyyi leen ci kanamu njaboot bi soxna Faatu ñoo ngi ñaan it yal na yàlla sàmm la yal na yàlla bàyyi daal sa borom kër kilifa wali ñaan na ko sant yàlla ko yàlla def ci dara bi yónni ci Moustapha Sànq wax na ci jotaay bi biir mu ne dangaa couleur jotaay waaw dama naan jigéen la daa am loo xam ne yomb ci jigéen foofu laay wàccee sama kàddu dafa am jigéen bu ñu doon tuddee Rabiatul Adawi mu mënoon a jaamu yàlla mën a jaamu yàlla junni raka daaw dana daan julli fële boobu liir naa ko ci kii bu ñu tuddee alfawdu wan najah Rabiatul Adawi junni raka la daan naafila fële boobu mu dem ci naafilaam yooyu la muy bari bari jural ko bëgg Seydina Muhammad mu ni ida saxa min kal uddu fa kullu xijin waaye wa kullu ma fawqa turaabi turaabu maa ngi ñaan daal mbooleem ñi fi daje yàlla yàlla faj seen aajo mbooleem ñi nga xam ne bi ñuy ñëw ren ci kaar yi lañ ko mujj buux buuxloo bu déwénee ne yàlla yàlla dimbali leen bañ war ay rànkaat ñii war ay rànk gaari ko fii ci dara nga yéen ci yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ndaw da yow rek du ma wax ci yow ndax waykata arab ba dañu naajut an nafsi kasda ndax wax ci moom mooy wax ci sama jëmm yal na yàlla dolli sàmm la yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla taxawu la ci dara jooju ñu ci def alayhi salaatu wasalaam dama naan wax ci yow mooy min ka ilayka rek moo tax jarul yàttal asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf xam nga gànnaaw soog la woon gàtt rek da sa wàccee gas koo xam sa waajur tur bu màngewul li may wax Ablaye Mbaye mi man nañ seede ku xam maam Mor Awa Ndiouge Seye sa maam. alaaji boole naa laaj. xam ni li fi bind fii ba Makka su ko firiwul kenn ko firi di njëkk léegi nag dafa am lu xew ndekete ñun fi daan màggale danoo seetaan suuf rek ñun daa warul màggal ndekete màggal yi daal kër Modou Gueye la xam nga ku yàgg dox yàgg gis. ñun dañ daan màggal rek kenn xamul la ñuy kenn xamul la tànn biir kenn xamul la ñuy def ndekete daal màggal gi kër moo dundee lépp. waaye te léegi nag sànq yi di waaye suñu mag Ablaye Mbaye daa toog nii te xam nga kenn ku ne li nga man ñuy xasaay danu man suñu moo géej nii buñ paree moom la dox moom la dugal waaye kenn ku ne daa am loo man léegi nag damaa bëgg ku sopp bàll soow. nga jox ko ñaari junni ku bëgg baal soow rek ndax ndax sama yaa am sama dem waaye déglu li ñu mel yow mii yaay toog ku dóoru ci saraka jàmm lu téye ko jàll xewoo suñ suwoo ba dikkuwul ku fi ñëw téye ko léegi dama am ku ma ngi dem di sax naa dem damay bañ a guddal si fallu damay bëgg a guddal rek xaalim pexe damay gërëm soxna si ah, ah, Fatou Faye ndax kee sama rakk la te soo ca bokkee da ngay yàgg chaque jour da koy teral fu mu taxaw na bàyyi saal père Fass may teral kon yàlla yàlla bu dal sa fan teraanga yi ngeen indi ci kër gi defaloo leen kenn seen bopp moo ko defal ndax moo lu ngay kum àndal teral ma la bisu Sëriñ Tuubaa ne faraasu la nu doon ak yàq waaye góobu ko wet kon teraanga bi mu fi indi yàlla na ko yàlla futal nday Mariam teranga lu waaye man lu ba yow nga gaaw def ko soo yeexee Modou Gueye def ko wala Tafa def ko nee na léegi nag xam naa ne lii may wax ki ma koy man na koo bañ a neex waaye léegi daa mu wax ku ne as nga nga jëfal ko teranga te du ko nekk ci bu la neexee nga damm borom xam-xam yi nee na sëñ naa leen mos naa toog ba ci yàgg mu ne xanaa yéen kenn ci yéen xaw ko di jëf lu baax ñu di ko suul te muy jàmbaar di déreet rasulillah yi si jaay bi Maalik bi day jàmbaar day rekk ci kër gi di jëf kat te li ñuy defal. mënuñu ko suñu bopp kenn ku ne yëg na ni am na talent bu ne ci moom ku gëstu téere yi la waaye loolu lépp nag dafa am lu taxaat la jërëjëf bi li fi yónnee xale juróom de te daf koo boole takku ku wax lii muy wax ci bisu Ahmadu bii foo dem dañ lay teral waaye moom daa ñëw di teralaat. yàlla na la yàlla doole fayal barke yonent bi ku fi ñëw di wax lu baax war a waaye moom day wax lu baax ba pare di teralaate yàlla na yàlla doole sàmm kóllëre gi jàpp ko bu tey doog a ñëw buñ fi nekkee ak fi nekkul jàppal ne Xaadim Mbay mee doom la la lu leen neex daf ko moom Serigne Saliou mii fa mu nekk fa laa nekk Ablaye nag mooy national lii may wax fortaatoo moom guddi lañ dem ba kër ma mënu ne ko yaay sama porte parole national boo ci diisee man damaa xam ne li man mënuma ko doxal sa waaj rek dina la noppal lu bari ndax ku ko gis gis la ku koy gisul bu la gisee gis ko kee moom sama waay si gaa ji Malick jërëjëf Mamadou nag yàlla na ko yàlla dolle fayal damaa wax ni sant bu Mbàkke waaye jëf ji muy jëf nag bi moo sant Mbàkke doxin bi moo sant Mbàkke ndax Mbàkke Mbàkke yi ñaar képp la leen di doy teral ñu àdduna après ñu àllaaxira Momadou nag ñaari dina ko def dana la jox li tax booy dem ci Ahmadou boo demee ci kenn la kenn la yàq te boo jógee ci biir këram gii doo dem fenn di seey nag yi bari na lool ginaar yi bari na lool pitax yi bari na lool naaj yi bari na lool te xorom sëggul waaye yooyu yëpp ko lekk. te doxin baay tax Fatou jërëjëfati doxin bi neex na ma jëf ji neex na ma waxin bi neex na ma te man su ma nee may Mamadou ma ne sa koo weddi waaye bu ma nekkoon ak lox mën naa bañ a wax te fi du la am nag bal sow yàlla na la yàlla yàggal ci kanamu xale yi ndaay nga mag nga xale ma gën nee na boobu muuma woo waaye da ngaa noppi. bàyyi Cheikh daan wax ni. muuma leen ci yu bon yi. te yu baax yi bu ñëwee. ngeen sa xoolee tuuti. sànq li nga wax faatu. lu ma neex la. ngir su defee lu baax. doxal ko. day yàlla. te dafa doxalee. doxee na ko jaar ci yoonu mbaax. te bële moo dëkk. daa àgg ca kër. dana fa àgg na ndax Momadou naan na ko fëtalal tiw yi maa ngi sa ginnaaw nay mare defam ji def sax koy ngistal mënu ko bu doon benn yoon képp la wax naa ko ci jotaay ba dama naan leen door na loo xam ni ku ne bu ko ku bëggul baax ku ko tàmbali jar waaye da koo def defati ko kon jar na ñu ne ko jërëjëfati jërëjëfati nag benn baat la waaye kuy soog a def nag duñ la ko wax yàlla na ko yàlla dolli sàmm ci barke yeneen bi Cheikh Moustapha nii di ànd ak Mamadou Gueye jublu sëñ Tuubaa bu yàgg bàyyi seen i kër sëriñ kër jàpp ni fii mooy seen i kër te buñ fi ñëwul màggal gi des si ñoom bi yor yor màggal gi amee bu ñu dikkee ba pare dañuy daw ziare seen kër sëriñ bàyyi seen i doom bàyyi seen i rak bàyyi seen i xarit dellu si waat fii ni leen nag fii la ñuy dal ndax mooy suñu dalwaay dañuy yàlla ñu ñaanal leen ci jigéen ñi ñu jiital ci ku mel ni soxna di ko ñaanal yal na yàlla guddal faram daf ni ma moom mooy bi sëriñ du ma dara Moustapha gën ñëpp ci Ahmadu ko mu topp bokkul koo topp doon li mu doon yonent bi daa leer li mu doon nekk léegi si daaj maa Ahmadu ko di ko wax nekk di Ahmadu Ahmadu nag day tax doo soof kenn nday daf ni ma moom moo deseetuma dara. keroog bi ma daggalee biyee màggal. te Moustapha Kër ñëpp. boobu laa jàpp ni moom moo dara. ku ma doon ci yéen. na damaa xir rek. bu ma sañoon kenn mere ma. beneen bi beneen bi ci des mooy tafa. tey ci suba mu mën a jóg dafay yàlla boole ko ak Mamadou Gueye. yàlla boole ñëw ak mu boole ñëw ak jëf. te nag Touba yaatu lool. ñu bari mën fa mën mu mën ko yaay sama seex. mu jël teraanga indi ko. ko ñëwal boppam. yàlla na ko yàlla doon sutura. jéem a kese. day xarit. di wëllëg di àndandoo. jëf ju rëy. jëf fi jëf ju rëy. damay wax ni Mamadou. damay wax ku ni sang. ku ni gis. baaraamam nga gis. gis. ndax lu jot lay daal. kon lu fi waay manees na ko boo ci damul. boo ci damul mën na koo jëfandikoo. ndoom ko wuutaleeg ngir yi fi fekk. Modou Matiña. yàlla ko yàlla doole sàmm. dama ne ko ñaari moom yi yàlla dama leen a boole boole démb tey doo ko ñëw taf damaa dam ni ma moo mënu di jëfkat la ah, te du wax li ma mënu jëf day nuróog yi moo du mati di jëf tawat moo tax ñëwul waaye sama jabar ji daf maa def la ma neex ndax man ku bëgg ma mënul damay bëgg ay jabaram yóbbu ko. bu ñëwee gis ma. bu ñëwee gis ma. gisee mooy ana Mati. lu tax ñëwagul. sama séeri ko ko bawul. xaaral ma dem woo ko léegi. tawat moo tax ñëwul. waaye bisu Amadou bi ko wutee am na ngànt. di gërëm nag bu baax. soxna yi nga xamante ni. xaritu Mamadou Gueye yële toog. bi Mamadou nekkee xale. ba ñëw màgg. ba ñëw yàlla may ko teraanga. ba yàlla ak ñoom. te ñoom day. te ñoom waaye ñoo nga ca kanam. na nga saa boo jàppee. saa boo jàppee. yow kese la moomu nga sa bopp. ndax tey suba. damaa dégg jama wax wax am solo. moom moom lu ko jàmbur di gërëm. mbokkam. mbokkam mu ngi koy gërëm te loolu dafay wane ni andi démb ak andi tayal neexul a xàmme ndax jëf ji yàlla tax la di gërëm bu baax na alaaji Tamsir Mbaye suñu xalifa dugg si na léegi di toog di gërëm bu baax nag Seydina Aliou day Cheikh Mamadou Gueye di xaritam waaye nag donc effacé wu bari na lu baax lu mu baaxal te kenn ko du di fee ci benn mbir ki may mujjee nag day saa waay ki may mujjee day sama waay ndax man nag neexumaa bu xanteel ci Mamadou Gueye saa bu ma neexee leen bëgg nga bu la dee jox fukk te mën maa benn mën naa yalwaan genn wàll jox la naa yalwaan genn wàllu man. man na maa yalwaan genn benn. jox la ko ngir bëgg gën a yokk. tafaat sama xarit la. tafaat sama xarit la. xam nga tax sama xarit. dafa bëgg rakam bi bëgg liggéey. te moom dafa tuddee woon bu gaabul la. xam baat boobu Fatou wax. moom daf koo dëggal. dañoo mos a toog ba ni ma. kenn rek mooy xam sama mbon ki bëgg a nax Mamadou ak ki bëggul Mamadou ndax Mamadou doful waaye nangu na loo xam ne nit ñi jàppe nañ ko def Tapha Ngor kii bi yal na yàlla doole sax daaw la càpp ñu koy ñaanal baax yàlla ko yàlla doole sax bëggul sax di ko gërëm waaye dina ko ñaanal noonu la ñaanal léegi suñu xarit suñu wëllëre Mansour rajo yi su musaana wax noo ko taal bu bu demee ba toll fii dana yàll ñu fàttaliku ko ñaanal ko yàlla na ko yàlla suñu borom yokk yërmande ci barke yonent bi sallallahu alayhi li fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo roqee daba soxna si Mamadou Gueye maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam Fatou Roqe daf maa ma soo ne ma sëñ Fallou yéen it rek la bëgg na ko baax daf maa sax nag daf maa yéen sax nag ndax Mamadou dafa bëgg lu baax te jabaram yëpp kenn ku nekk du ma leen laaj barki Ahmadul Xadim xam naa ci ñoom bëgg Muhammadu Rasulullah ndax kenn ku ma ci nag moom la kàddu bi ndax mooy suñu porte parole national yàlla dogal yi def dañ cee xajal rek waaye lépp moom la waaye sëñ Saaliu moom mooy mbokki moom baax nañu lépp mën nañu te dañ la bàyyee lépp te xam nañ ko de laa ilaaha illallaah bu ñu ñëwee fii ngeen tëdd ci plan dugal ñu si néeg xam ngeen ne da ngeen ñoo ñàkk a wutaleeg seen bopp rek waaye yàlla na defal ñu ko yàlla na yàlla doon leen fayal ci barke yonent Mamadou nag yàlla na ko yàlla la fa jot yàlla na ko yàlla fay yéene yi nit ñi moom daal dinaa leen dégg ñaar du dof te ku yewu la léeg-léeg dana jox ngir bëgg nga yew ndax say nelaw waaye du dof ñu ànd ak moom ngir goro nga ànd ak moom ngir ko ndax li ma mën a wat yàlla ku nekk ci ñoom lim ñu defal yéene ñu lu ko barke amul li may wax nii lu ma mën a waat la moom ku mu àndal ba sañoon li muy def loolu kay ni mu mel noonu kay mel ci moom rek laa gisee leader politique intellectuel ba tër li moom ànd ak militant simple bokk moom nii di lekk ak moom wëlbati ko di ko daggal di ko tegal. ya neex mu ko moom lekk lu naqari. fekk yow doyuloo noonu du doyuloo góor su mel na ko am nag moom da ngay fexe mu gën a am ndax bu gënee am nga gën a am. asalaamaaleykum. sëñ Fallou nga baal ma. waaye léegi sëñ Fallou nga baal ma. Fatou damaa yóbbante woon. Fatou damaa yóbbante woon. waaw ma ñëw. nee na nga baal ma dafa am lu fàtte. Ah, Fatou. sa yàlla na ko yàlla doon lee fayal gis nga man Touba daa yaatu ku ñëw fii moo sañoon booy def mbégte rek nga yóbbaale nii nga def sa mag yi papa yi bi ko jëkkee def danga ne ko bégal nga ko ndax fii dalluwaay ku ne fii fi ñëwee fekk fii personnalité bu mel yow dina xam ni moom ay cadre rek nga ko nga def te bu yàlla docteur Massina Samba ñëw fii war nañu ni faatu bi fa ne moo leen gënal fu nekkul yàlla na yàlla dolli dimbali ay dara bi ne lool yàlla na yàlla dolli sàmm yow yaa moom dëkk jërëjëfati waaw waaw nee na lu may ko tuuti rek faatu nee na daf ko yóbbante woon te sëñ Fallou lay wax ma toog muy wax may wax. muy wax may wax. waxal ma ko. Fatou nee sant. équipe muy liggéeyal. te ñetti fan. ñu ñett jógee Dakar ñëw fii. ak waa këram. ñu jógee lan saa. deux délégation ñëw fii. ñetti fan ñu ngi fi. muy rakam góor yi mag ñetti fan ñu ñooñu tam ngi leen tamit ñu ngi leen di gërëm di sant. nee na mu jaarale seen fàllu mu santaale ko waaye seen xaar yi. maa ngi maa ngi jégalu bu baax. nee na muy tuub Ablaye Mbaye bu Mor Gueye mi ndax Mor Gueye mi koy wax Mamadou léegi maa koy jàngal Mbacke Faye moom mooy yi quatre dafa war a dem kër Mbacke Faye dafa war a dem kër Mbacke léegi nag dañuy jox Pape Laye Mbaye mu yëkkati kaddu mu yëkkati kaddu bu ñu paree dem ci dem ci Alaaji yi xam nga Pape Laye Mbaye maa ngi jégalu te biir na ma ne li tax nga di ma jégal xamul ndax wax wax ji du yàq lu soof maa ngi wax ci sëñ Tuubaa wax li ma li ma wax nii du génn ñaari nit ndax du yàq lu soof dañuy sant sëñ Tuubaa rek di nuyu bu baax Baye Tamsir Mbaye bi nga xam ne mooy suñu kilifa di ñaan président moom di nuyu yàlla guddal fanam gis nga bàjjan ban saw mi toog wax na wax joo xam ne tey ci sànni barki Cheikhul Khadim li muy ñëw ci sama jëmm li ñëw sama image dafa bari te nit boo ko jàppee ko ba mu jeex lu ko dal càpp yàq te mais dañu ñaanal président yàlla ko dem fan rek. ay ay wax ju ñu jublu wax jëru jëru partagé nañu ñaan yàlla guddal fan mais ajarat bala bu baax sama cameraman bi tey day wax maa ngi wax ci Fatou waaye waxuma ngir bëgg lu ñuy dox. waxuma ngir doon géwél ma ne ko xanaa xamoo ne sax bu fekkee dégg nga bëgg a boo toppee tër ñuy géwél ba ci biir Serigne Allé mi fi toog sax boo ko toppee ba ci biir génnul ci xeetu géwél géwél xeet mooy wax lu baax géwél wax lu baax géwél wax du ko gis bu ko wax du ko fekk te suñu ñëwee ñu fekk ni Moustapha ma la toog nii maam ma du toog ay na fat fat fay ñuy toog ak madame ju baax ji ak Fama ak ayam mbal mi ba ci euh, daawale caag tumaane sama xel maa ngi lay nuyu ñu mën a ñëw xam si gi mën a xool ñëpp mooy lu baax la ñu baax. ba ci dégg bi ma ñëwee sa kër nekk ci ñeent fukki junni jox ma ne dama xotti di loo loo sol ci gàmm ci ci màggal dama lay xool bi jaar ma ne ko jëfal te wax dañuy jëf fu ma la fekk wax dañuy jëf fu ma yenn nga yàq wax dafa xuloon jëf ko fu ma la yenn fu ma yenn nga yàq jëf ko fu ma la fekk nga tuuf moo tax lu waay mën a wax. ci mbaax da koy wax ngir nangu ak teegu ci xolam di baax waaye jëf dina def kii nga xam ne tuwaar kàlla di ajal bal saw mi nga xam ne tuwaar kàlla mooy fi waaye du mënul ngay moo ko dafa wax ko lu mën a xew faatu ku baax waaye màggal di ñëw nga takki million jox sa borom kër rey ay nag sonn ci dëkk dafa oto yi def ci essence gaas sa borom kër sa borom kër bis bi xam nga ni da nga ko bëgg jaay tax te boo jëlee sa bët teg ko ci li mu yor lii nga def doo ko def kon maa ngi waxoon séeréer ci kanam ñii bokk président Mamadou Guèye ak sa mbokk yii yal na yàlla guddee sa fan. loolu ci demee dama ne la ab tool boo ci dee bàyyi te bëgg moom mu ŋaax nga tàcc bu yàggee tool bi ruux loolu laa ko dama ne ko ab tool soo ci dee bàyyi te bëgg moom mu ŋaax nga tàcc bu yàggee tool bi ruux kuy jëf lu baax jëfaloo ko kenn sa bopp nga ko jëfal kon soo jëfalee loolu sa borom kër nit ñi toog dama la ko wax man nag su ma ñëwee ci jataay kër président Mouride Gueye ba nit bi nga toog ak li ñu yàlla boolee ak fi ma féete ak li ma def taw ko bu ma ñëwee war na sa fan yàlla nga fi ñàkk yàlla nga am jàmm bàyyi lii def mu war a ñàkk bàyyi tam ndax doomi géwél bu juddoo mu ma tas sa yaakaari bàyyi tey suba nee naa ko loo def Touba. yaay yaay yaay yaay ma ne. dama tey suba dama ñëw. loolu jiw bu juddoo mu ma tas na yaakaar saa yaakaar bu baax bi lay wax nga dëgg. xale ne ni ñaari jiw. xale ne ni ñaari jiw. doomi jiw bu juddoo mu ma tas na yaakaar saa yaakaar. walaay ndeysaan. boo boo boo nekkee nii sax lan lay kàq ba xam jooy gi neex na. bu jooy gi neexul ñu ci ñu léegi nag Mamadou. Fass. bërki déewu teraanga ji mu jëf ci bisu Mamadou bii ci man la jaaree man maa ko woo téléphone Mamadou mii ne ko sa bis ndax wax nga ko Fatou ndax nit bu la yàlla boole moom da koy defal. waaw mu yëgit teraanga jox ma ni ma maa ko def ci bis bi. rajo ko ko mais nit lépp lu koy jëmale kanam ci sa diggante nit moom ak nitam da nga koy waaye Amady Diassane jumaan Seexul Fuuti Taal dëgg bu xeloo ca njum moo ko tabax gun galaa Diassane fay samaam ñu demoon suñu tubaab xare ci la bokk ba ñu nee daan daan bi moo tax ba liggéeyee daal mus mbaa nga dugg mesare mbaa nga dugg Touba yéen doon toog ci kaw ngeen ci toog moo tax bisu Sëriñ Tuubaa bi loolu def yàlla la ko fay diggante ko nag jéeg maanaam mbaa soo jëlee ci gaal gi coono ko jël toog yàlla sa borom muy dégg xel sëgg sëgg jëbi tax suuf nee na baatu bi wilaaya ñu ne moom mu ne ba 30 tonnes day saf jiw bi man man ak Modou Modou moo fa nuyu dund bàyyi si Fallou bi la jubbee Fallou amoon na sa jafe ba càmmoñal ma ne ma bunte xaaral pour nit ñi ma ma sa nekk si. sëñ Fallou 1928 la dem Màkka dem leen ci mars bi ñu leen ci kaamil Fatou tué le miir tué le miir tué le miir eh, jërëjëf sëñ Fallou sëñ Fallou maa ngi jégalu bu baax. guddi gi màggat na waaye dafa am loo xam si bu ma ko waxul ku ñibbi yëppaare ba danga naan lu xew yaa gore hmm. ndax yaa ma jël soon 2017 ànd ak Mamadou Gueye kon dama laa fekk ci biir nga boor ma roggante ma te xañoo ma daal yàlla boole ñu ne ma Mamadou Gueye jëm te tey ñëw may leeralaat rek la ma la waxoon ca kanamam jataay bu mën a doonaat naa ko leeralaat fan ma bowoon ma tey fanaane ak lu mën a xew fan ma bowoon fanaane ndigalam baax na lu waay dabaale baax na waaye man daal foo mumul bowoon fanaan ne fanaa koy xaar ba mu fekkaan ma fa ñu waxaat lan war wax foofu close du ma ci waxaat xanaa mu boobaa te gàmmu incha allah bi ngi waxoon naa li may wax fee ci bëccëg waaye dinaa ci jaaraat rek tuuti ndax xam naa ne waxtu wi dem ndax li ma yàlla defal ci jataay bi yombul sama nijaay dafay nekk alal Tafsir Mbay ñu àndoon dem màkk Seydou Almuni mi maa nijaay yóbbu ma ca ñu ànd bokk benn nit ndax di ko dawal ay soxlaam ndax mooy sama nijaay sëñ Fallou bii di man may moom ñii samay rak kon man la daloon sëñ Fallou ma daal galas ci Touba galas bu mm. ma yónnee rek ma yónni ñii kon maa ngi yàlla baax li ma waxoon ci bëccëg delluwaat ci bëccëg wax ni góor joxe dépasse la man waaye jigéen moo yaatal kër ñu dugg ci soxna Fat Faye wax ci ay teraangaam wax lu baax la mu def foofu ba fu génnee ñu dugg ci baat saw ah, wax ko ni ko tabarkalla macha allah nag ba suñu wuy jiba di wàcc gumba nag fa la du fekk diggante ñaari kër yi noonu du ñaari kër genn kër sama rakk dara góoruma kenn moomal kii lu war sama diggante moom rek wala sama diggante ak sama njaboot def na ko te musuma jokkal bi benn bët lu saam bi ànd si fàll bu bare bii rek bëgg ma lool dafa ma xam ko ndax nag mag nag ñu yokk dara jàmm xam na ko lu ci waaye xam na maa ngi lay fa lu gudd ànd ak wér di nuyu ajara ci mati bu baax ndax li tax ma ne kooku mooy doon lu tuuti

fa ma bawoon falaa ne ndax ba mu ma nee ba tey néew ma déet waaw pour lan ma duggee ci sama rek ba ma nee ba tey néew ma déet ma yóbbatu ko naan ko déet pour lan fan laa koy teg bu ko diine nangoo sax ngor du hmm. ba soo maa ngi lay nuyu maa baax di la ñaanal jàmm ak tawfiq ak xéewal di ñaanal nag ñëpp ci jataay di wax ni soxna nag nuyu naa la baax nuy délégation yi fi dajale yëpp dafa maa ngi lay nuyu maa waaye li may leeral rek mooy dama fi ànd si àll ci bëccëg te it nag yàlla dimbali na ma ba fi jëkkee ñëw man la am te bu fi jëm bu demee ma kuufati ko fi xaar ko ba ñëw ndax xam naa ne bu départ ñëw fii këram lañ. ndax seen diggante nag am na lu ma ci xam mu wax fi ci bëccëg lu am solo jëruñu di ca jaaraat waaye bu nu àndee mu war a dilsiwaat te ñëwaatul jaar na ma leeral nit ñi lan moo tere Chérif Alwely ñëwaatul dañoo jóge fii dem kër alaaji jaaji mbay ndax alaaji màggat ma fa nekk lu jaaji jur moom doomu moo ciy xaaju bu màggal jotee day ànd ak njaboot googu yëpp ñëw Chérif àndule mu indi ci otoom ak njabootam ñu dem ba tàggoog ñoom pour wala jëm si suuf si fii di ñaaw a jëm sëñ Ka borom ni teel kat la mu jawee fi ne amul sëñ ko ma ne ko nag yow demal yaay Moodu Moodu yow man maay yow te àdduna bépp xam na ni maay yow te xam na ni yaay Moodu bàyyi ma dem nekkal fa sama bopp nekkaalee la fa. kon su ma leen denc ko fi te njëkk ma fi leeral ko ngir jëm yàlla ngeen tamit sëriñ Tuubaa mi nga xam si gëmuma kenn ku dul moom su ma ñibbisi la ma fi daal naa ko teg sama bopp foofu lay wàcce sama kàddu di balu ñëpp nag ak tey baal ñëpp di la wax daal sëñ Fallou staff bi ñoom day ne ña ngeen àndaloon fa ngeen ma bawoon falaan ne lu ngeen dégg ci man yéen a ko déglu de waaye man de dégguma ci yéen dara te du ko déglu fa ngeen ma bawoon fa ngeen may fekkaat ku ma àndalee. maa ngi bëgg yow a jox ndigal ma dem ànd ak moom te bu ni maa tey nga dàq ma teg ati ànd ak moom ndax le maire de la commune de Kiew keroog bi may nommé di ma def euh, chargé à la communication du maire bu ma duggee woon déedéet bu ca daan bu ca daan moo ma boolee moom teg ko ci loxo ma ànd ak moom bis ba ma nee na arrêté du du du jàll ci man asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ban daje moom ba ca gàmm am ay. waaw waaw waaw waaw lu dal waaye dafa am lu rëy lu mu am ci Cheikh Alwali ndax wuy juróom ko Cheikh na sama nag baadan dafa jëloon wuy juróom ba tey jii boo demee ca barab bi moom rek dafa mën a génne muy ku ku nekk ci biir sérif yi jaaxal kon bu nu dikkee fekk la fi ngay doomu bàyyi Cheikh Alwali ku ne xam seen diggante su ma dee nuyoo di wax dara ci sama loxo laa ko war a teg maa ngi lay nuyu bu baax di ay dara sa paale wax di la ñaanal jàmm ngeen baal maam. jàngat ramal waraane la fadlil musina wal fallo yenda rasulillah ay xaraaru ah, waaw mooy direct ko dégg ma jom daan ma baab ma ji sama ramal waraane والفضل لرسول الله الكفار وسموا الحلم دابا للجميع كما كانوا يقيمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء صديقنا عمر عثمانهم وعلي نعم الابرار عليهم ودار سنار بنار منه الانوار وان اكون شهيدا هابدا ابدا وخادما وصف خادم رسول الله وخادما خدمة تدا وتدار وقل رب زدني علما وجد وترفع من أهل نورك المفتح ارفع دعوك لم خيوم الأجياء من تراس من كشوف ناديا نما اسمع كان هندي بما لديه راجيا سلال سبما يا رب حللني كل من نافع أني وأنا عن الشقاء Cheikh Bamba yaa mat li nga doon Cheikh Bamba yaa mat li nga doon Cheikh Bamba yaa mat li nga doon Cheikh Bamba yaa mat li nga doon màggal gi waaye Cheikh Bamba yaa mag li nga doon lu fekkoo ci àdduna morom tooñoo borom tooñoo morom te nit ñi tooñi xarnu bi maa ngi dalay nag ci Musaa mag buñ fa jógewul mu sopp bàyyi Sëriñ Saaliw Mbàkke mag buñ fa jógewul te néegi Tuubaa ji soriwul mu def ko mag te jubal pas-pas yi ngir sa yërmande yóbbu nu jànnatul xolaa mooy kër ga amul tiis ak balaa ca boole noog pular malaa bu wàllu ngër gi yërmande mag buñ fa jógewul te soriwul ñu def ko màkk tey jubal waay pas-pas yi ngir si yërmande allah ji fallu mbàkke yaanu moom yaanu moom ngir sa baay laanu moom sa njaboot yi ay sama doom sama sama xarit bu baax bii nga xam mooy xaalim peex yàlla dogal ma bëggul sama xol mooy sama xarit bokk ak sëriñ Saliou nii lépp ak sunu wàllu mu baax mii mas naa ma fekk kër Ablaye Mbaye peex bu ma juumul ñu ngi baax yéen aussi moo nu néew leen mun leen a passé loolu mënta ne waaye xaalis kontaan naa sama xarit bi yow da baax te gore lool nit ku yiw ñii nga bokkal sa jikko tax gëmewuñu la yow nit ku baax la nit ku yaatal la nit ku rëy yéene nga waaye mënoo doon leen ndax cin la yow sëñ Tuubaa la ñu tudde ay jikko yu tedd di koy makaarimul axlaaq rek moo war a lay siiw kon nag ñu ngi ñaanal président Paul Bley suñu morom yàggal ko ci barke Cheikh Abdou. jërëjëf. moom subaa tey moom ak ak. jërëjëf waaye. waaye jóge ci sama programme. dañoo ma fi man Alaaji Sow moo ko woo pour ma ñëw fii ma ne ko man dem may wutal. li ma fi ñëw sax xaw ma fi la dem waaye bu ñu ñëwee ba toog ci laa ko expliqué sax ni ko seen Aliou Mbaye mais. moom ak Modou Gueye benn lañ toog papa ak sama papa bokk nawet benn. ndeysaan Aliou Mbaye mi. ndeysaan sëñ Fallou mi moom itamit yàlla dogal seen yaay ak suma yaay ñu bokk loolu doy boobu kon moom ñoom sama lépp loolu ñun nag xasida rek mooy suñu yitte wala suñu lépp xasaay bi bi ñu fi ñëwee man nañu ko xasaay parce que gars yi ñu man nañu ko xasaay bi loolu rek na comme ñoom ñoo dox ñu barkeelu juróomi minute rek lu gàtt ci xasaay di leen doon bu ñu paree daal di bàyyi daal di def ñu bëri إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيت الملام إليك يا خير البرية البرية سلام خديرك الذي يبلغ العدل سامخا حسن وكرام déjà من فاز بالعلم maadaam ak biir borom Tuubaa def na kàddu si Tuubaa nga xam ni. incha allahu taala incha allahu taala incha allahu taala wallaay man de bi ñuy ñëw léegi jàngal ba ci ma xam ne nii boo gisee mu ne la toog jàngal bii sama rakk suba léegi pour ànd ak moom ci programme bi Touba ñu war a ñibbi si ma sëñ Alaaji Seck Alaaji Seck daf maa woo a dem ci moom mu di ko wàcce benn taxi wala benn taxi bu rafet da nga oto ba koy indi wala ba wallaahi mooy sababu mu ne ko nañu dem ñu bu bi mu ñëwee ñuy toog bi mu ñëwee toog fekk sëñ Alim Ndey mi ñu mu demee waajuram bu góor ak sama waajur bu góor bokk ndey ak baay sëñ Fallou moom it ñu demee kon yëf yi ci laa bokk kon nag maa ngi ñaan yàlla na ko tey at yu bëri boo desee ñu ngi fiy sant rek yàlla na ko sëñ Tuubaa defal di xaadim mbay yi ñu ñoon fii Bourguel moom it di suma xarit sant ci barab yu bëri say suma daan ko baax xam nga ñaan yàlla sama borom defal leen jàmm bu baax ak liggéey sëñ Tuubaa xasida waaw. jërëjëf borom rajo yi yal na ko yàlla defal jàmm.